xale ma xale ma Tidiane la. la non am na am na am kontaan rek am kontaan bu baax ndax ko fangu la te ko mënee nag wax dëgg yàlla moo tax mais sant bu baax. waaw sant nañ jël. waaw sant yàlla rek waaw di ñaan ñu commencé ni génn si alhamdulilah rabbi alamin dañu si am combat yëpp te dëkk dëkk làmb ji yàlla nañu yàlla may ndam jaajëf waay kontaan bu baax. Tigre dañ koy bëgg amul leneen. Eh, Tigre Dégueur. Tigre kese amul leneen barki alxuraan. Xali xali waa Douane laajte. Tigre. jël na affaire bi ndoy tigir la jox ay moromam da nga jox moromam barki Serigne Touba Mbacke mag dugaar du lamb dugaar yi kay taw treize combats treize victoire dañu jox ci kaw ñu bëre Diène Kaïré na jël booy bi Diène Kaïré na bëre ak moom Diène Kaïré na jël booy ah, eh, la Eh, li mu entraîné moom la wone eh, na ko booy may sax kii champion la. laasaa luñ xewle. luñ eh, xam sa dafa am fu ñu jugee am lu nekk suñ kanam ñun tàkkusaan yi nii daf ñoo jaral te balaa ñoo xam daf ñoo jaral am na yeneen ñu war a ñëw dañuy jëf jël ku jëful doo jël. ah billaay wallaay nii rek la mënoon demee dañoo sonn quoi nii rek la mënoon demee xam la xëy xamuñu ko nag mais billaay li ci kanam a raw billaay wallaay dañoo sonn si làmb waaw sant yàlla sant yàlla si victoire bi te nii lay continuer si kattanu yàlla heure bu ñu ndam incha allah parce que loolu lañ fas yéenee ren si kattanu yàlla incha allah lépp ndam si kattanu yàlla. mais noo gisee làmb ji. waaw parce que moom xamul Tigre moom xamul Tigre waaye Tigre day moromu booy bi. duñ jëm fépp fu ko làmb boole rek Tigre xale na ko jël. te bàyyi wiiri maama na ko mbëri jël. bégee bégee. waaw man maa ngi ni ñaanal ma sama combat balaa semaine bi sori nañ si maa ngi ñaan yàlla mu taxaw incha allah ñaanal ma rek waaw parce que stade na namm na ma quoi musuma fi bëre Iba Mar laa doon bëre dafa sori te te pourtant dama ko doon duy léegi nañ ma andi fii moo leen ni man dama bokk si mbëri maanaam yi nga xam dañu war a téye làmb ëllëg incha allah si kàttanu yàlla